bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli di mbokki taalibe yi ñuy teewlu Touba Info ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di dikk ak yéen ci jotaay bii nga xam ne ñoo ngi ko amal ngir waxtaane kenn ci jàmbaar yi kenn ci mag ñi waaye kenn ci doomi sëriñ Touba yi muy soxna ummi Mbàkke soxna ummi Kalsum di doomi sëriñ Touba ñu waajal ak màggalam di altine bii ñu jëm incha allah fas yéene waxtaane nag ak dundam euh, gu barkeel googi ngir ñu xam lan lañ ci mën a jariñoo ñu fas ko yéene ànd ak sunu mbokk sëriñ Saalihu moom sëriñ Bay Mbàkke jaaxal euh, di jàmbaar lool ci waar wi moom moo ñu war a dikkal sax incha allah ci waxtaane dunduk soxna ummi yiñ ci soxla maanaam fan la gane jamono akum njàngam ak formation bi mu def ba ni muy demee kër ba ni muy fekkee way waajuram gànnaar ba ni muy wàcceb liggéey ak jikkoom yu tedd ya euh, incha allah sëñ Saliou moo ñu ci dikkal ngir ubbil ko waxtaan wi nag danañu leeral soxna siñ bëgg a waxtaane mooy soxna ummi kan moom mooy moom mooy kan maanaam fan la bokk kan mooy ay waay ñan ñooy ay waajuram doon na dooy sëkk nag ñu ne soxna ummi doomi Cheikhul Xadim la mi ñëpp bokk euh, waaye dana baaxit ñu wax ñu ñu wax kan mooy waajuram wu jigéen ngir ñu xam ne euh, wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi maanaam suuf su baax daal mooy génne Euh, meññet wu baax kon bu ñu waxee kan mooy waajuram lu ñu waxaat ci soxna mi ci mbaax danañ xam ne kon loolu yi war naa mën a nekk ndax dañuy wax ne ni nga bëgg sa doom mel ko yaa ngi koy tàmbalee yare ci bi ngay tànn waajuram euh, door a def ci moom nag li ngay def ci moom kon kan mooy waay waajuram soxna Penda Touré ñu daan ko woowee sëriñ soxna Penda Cissé soxna Penda Touré mi ngi bokk ci askan wu ñuy wax askanu Màkka Touré ndax mi ngi doon doomi sëñ Mor Matufa Touré mi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa seede woon ci moom ne lum jur rek wàlliw la ki bi waxoon ne lum jur wàlliw la moo jur soxna Penda mii jur soxna mi mi ñuy waxtaane waaye ndax cër boobu ñu ko fàgguloon moom soxna Penda ne lum jur wàlliw la ak wilaaye gi ay waajuram amoon ndax dafa toog rek bank ay loxoom di ko xaar déedéet dafa jaayante def dem liggéeyi nag ba li cër bi ko yàlla fàgguloon mu mën cee jot ndax ñi ngi nettali ne mas naa wax sëriñ bu mag bi ne ko damaa bëgg àgg ci sunu boroom loolu yitte ju kawe la damaa bëgg àgg ci sunu borom sëriñ bi ne ko dey kon bay boo nga waajal ay natt yu baree bari wax nañ ni it mas naa wax maam suñ maam Mor Jaara ne ko damaa bëgg dem ci pay ba mu ne ko kon day waajal ndax sun boroom kum sopp nattu la waaye nattu yooyu yi tamit gis nañ ko ci ak dundam ndax mbooleem doom joo xam ne yàlla jox na ko ko ci kanamam la ko yàlla jëlewaat doomam yépp danañ ci ñëw incha allah waaye ay lenn ci ay sëtamit yi mu njëkk a gis mu doomi soxna mii ñëpp it ci kanamam lañ faatoo kon say doom ak say sët di faatu ci sa kanam loolu doy nam nattu kon ñu mën a am rafet njortu ci ne lam jaayante woon bañ ne ko xaaral nattu yi ginnaaw jaayante na xaar na fa nattu yi rafet rafet na njortu ci jot gi gim jot ci lim lim doon jaayante mu dugg ci buntu wilaaye boobu yi euh, gis nañ tamit jamono yi mu nekkee colam am na góor gu baax gu ñuy wax Serigne Ibra Ndiaye goo xam ne nee na da daan def rek saa yu tëddee ba guddi di gént ñu naan ko say mbir soxna sa ne colam moo ko yor ba mu demee ba yëf yi bari nag ci la laajte kan moo ne colom ñu ne ko am na ku baax ku ñuy wax soxna Penda Touré ku fa nekk koo xam ne sëriñ mag bi moo ko yoroon ca la demee ci moom waxtaan ak moom xam ne kii mooy ki ñu ko doon booleel mu jaayanteek moom jébbalu ci moom loolu ab cër la waaye buñ ko dee wax nag loolu day tax ñu xam ne rek soxna si ñii ñoo ko meññ kon luñ wax ci moom ci mbaax war naa mën a nekk lu ñu wax ci moom cig wilaaya war naa mën a nekk. Euh, ku juddoo ci ñaari waajur yu mel nii ñu waxtaane euh, lu ñu wax ci yow rek war naa mën a nekk euh, bala ñoo ñëw nag ci tas ñan ñooy mbokk gi ak lan moo ñan ñooy ñi ko ñiy taxawal màggal gi lan lañ bokk ak soxna si dañuy bàyyi sëñ Saalihu ginnaaw bu nuyoo mu dikkal ñu ci soxna si ñuy bëgg a waxtaane kañ kañ la gane jamono fan la ganee jamono fan la jànge bu ñu tënkalee loolu ba noppi incha allah ñu dellu si. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man bi ihsaanin ila yawmi ñi ngi siyaar mbooleem ñi ni teewlu ci eh, fii ñu nekk tey muy ci Touba Info di siyaar bu baax suñ Fallu mi nga xam moom lañ àndal waxtaan wi di ko sant tamit ci ubbi gi nga xamee def na ko mu nekk lu am solo loo xam ne euh, yaatal na yoon lu bare bare ci soxna si wax na ko waaye ngir ñëw ci laaj bi rek kon dañuy wax ni soxna ummi ni ko siñ bi waxee ay waajuram mooy siñ bu mag bi ak euh, soxna Penda Touré soxna ummi moom nag mi ngi gane àdduna ci atum 1885 ba 1884 ci Mbàkke Bawol gii foofu la gane àdduna ci ñaari waajur yu tedd yi bu ñuy xool tamit ci njabootu sëñ bu mag bi day mel ni bokk na bokkoon na ci mag ñi ndax xëy nañu ko ci féetu woon ak mag bëri wutoon muy soxna ja ak soxna Astu euh, Mbàkke Kajoor ak euh, Mouhamadou Kabir mi nga xamee ne moo moom moom soxna si ñoo bokk lépp bi nga xamee ne dem na ba toll ci waxtu dal jàng tamit niñ ko miine fi mu bokk ni ko sëñ bi waxee Euh, bokk na ci askan wu baax waaye nag baax googu am na lu ko xam ne ci lañ leen miine tam mooy sàkku xam-xam te mooy jàng moo tax bi mu tollee ci jàng alxuraan siñ bi moo ko dalal jàng moo ko dalal jàng ginnaaw bi nag mu jox ko euh, siñ ndaam Abdourahmaan mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci euh, jàngale alxuraan xam ñu baree bari ci njabootu sëriñ bi moo leen jàngal ñu baree bari ci mag ñi tamit moo leen jàngal. bi mu fi nekkee foofu mokkal alquran ni nga xam ne moom lañ ko miine noonu lañ ko xamee ci askan yu mu bokk mu daal di euh, tàmbali njàngum xam-xam ndax dañ jàpp ne alquran rek euh, doyut ndax euh, nit ki ngir alxuraan ji mu jàng mën kaa jëfe dëgg-dëgg faaw mu teg ci xam-xam muy xam mbirum diineem di ko yàlla sant ndax ginnaaw suñu boroom danoo digal ñu jaamu ko te jaamu googu balaa mën a am faaw ñu xam ko ndax looxu mën mënoo ko jàmm taarifuuni qabla an tabudu an tabuduuni te ci wama waxoon ne wama xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun kon ibaada googu balaa mën a am faaw xam gi day am muy maxrifa xam googu bu umut doo ko mën a jaamu jaamu gu wér kon ngir nga mën kaa jaamu jaamu gu wér ni nga ko santaane xam li war ci moom ak li jomb ci moom faaw euh, xam-xam boobu day am loolu moo tax nag soxna ummi ginnaaw bi mu jàngee xam-xam ba mokkal ko ba jaar fi ñëpp di jaar ci gaa yu baax yi da cee teg euh, jàng xam-xam ba géeju ci lool ci lu jëm ci mbirum xam-xam diineem kon ci laaj bi wax na loolu kon mooy soxna um bi fan la ganee àdduna mooy Mbàkke Bawal man at la 1885 ba 84 njàngam tamit sëñ bi mu ngi dox ci diggante siñ bu mag bi ak sëñ daam Abdourahman mi nga xamee ni euh, mag ñu bare ci yoon wi wala njaboot gu bare bare ci njaboot sëñ bi moo leen jàngal kon xam naa dañuy taxawlu foofu ba beneen laaj ñëwaat incha allah. waaw kay jërëjëf sëriñ Saliou ci leeral yooyu euh, muy lu am solo lool yu wane ne toomi jullit li war a jiitu ci moom cib dëndam mooy alquran bu ca noppee xam ay farataam xam diineem muy góor muy jigéen loolu moo war a jiitu ci moom loolu sëriñ bi jàngale na ko ci ak dundam am na ko masalaaj Euh, ana sa doom diw mu ne ko ah fi mu ne day mu ngi jëm mag mu ne ko nu mu toll mu ne ko bu doon góor di mata dal mu ne ko ba muy jigéen nag kon day wane ne jàng moom góor ak jigéen a ci yam waaye dafa am lu am solo loo xam ne ci dunduk soxna ummi sëriñ bi réglé waale na ko ci muy euh, nga doon doomi soxna def li la war jàng alxuraan jàng xam-xam ba noppi waaye ñu yar la ba foo dem man faa nekk kon xam naa laaj laaj bi nga xam ne moom lañ lay joxaat day doon maanaam ak am maanaam ak yaram formation bi mu def ba ni muy mat a demee kër akuk dem këramam ndax day mel ni nit ki euh, mu soxna si yar buñ ko yar biñ ko war a yar ak niñ ko war a former day feeñit ci ak dundam day feeñ ci ab jëflanteem ak nit ñi waaye day feeñ tamit ci nim doon yore këram. kon damay boole ñaari laaj def ko muy benn naka lañ ko waajale ba mu mat a dem kër bi mu matee dem kër it fan la fan ak fan la jaar euh, loolu mooy laajub ñaareel. Euh, waaw jërëjëf suñu Fallu soxna si noonu ñu ko waxee rek ginnaaw bi mu jàngee ci mbirum diineem tàmbale ko ci alxuraan ba noppi teg ci jàngum xam-xamum ba géeju ci. Euh, waajuram daa woolu soxna su mag si muy soxna Penda Touré euh, xamal ko na ko jàngal liggéeyu jigéen ndax loolu dañu jàpp ne mënut a ñàkk ci jigéen wala mënut a ñàkk ci koo xam ne ab royukaay la ndax koo xam ne ay mbooloo yu bari dañuy daje ci yow nga war leen a tërbiya war leen a jàngal dana ci baax nga xam euh, loolu naka lañ koy defee loolu moo tax ginnaaw bi mu jàngee lépp loo xam ne war na kaa xam ci mbirum diineem Euh, sëñ bi daa woo waajuram ne na ko jàngal liggéeyu jigéen mooy liggéeyu kër euh, bi ko sëñ bi waxee loolu tamit euh, soxna si mooy soxna Penda Touré bi mu demee ba ci yàgg sëñ bi laa nemmikuwaat soxna si ne ndax yaa ngi koy jàngal liggéeyu kër soxna si ne ko man ko damay njortoon ni bu demee ba war caa toll dana am ñu ko defal sëñ bi ne ko waaw waaye nag da nga koy jàngal rek ndax bu fu àggee bu ko munut wala bu ko umul ñu ko defal mu mën kaa defal boppam boo ko amee nag euh, tëdd moom kenn du ko jàngal kenn loolu nag tax soxna Penda euh, taxaw ci jàngal ko liggéeyub kër ba lépp loo xam ne euh, soxna dana ko yittewoo ci këram lépp mu man ko ànd ak loolu lépp tamit mu tërbiya ko ci tërbiyatu ruuxiya wàllu ruux ndax niñ ko waxee xam-xam baax na waaye nag xam-xam boobu ngir nit ki mën kaa jëfe dëgg dëgg dëgg faaw mu am euh, at tarbiyatu ar ruuxiya loolu tamit day mel ni feeñ na ci soxna si ndax euh, ba dinañ ko dinañ ci àgg xëy na am na mbooloo mu bari ay nit ñu bari ñoo xam ne moo leen yoroon doon leen defar. meen dem na ba toll ci euh, war a dem kër boobu fekk siñ bi mu ngi ci géej gi mu ngi ci tukkeem boobu tukkeem boobu nga xam ne def ngir liggéeyal yonante bi alayhi salaam waaye ngir xeet li mbindee boobu ci lañ ko jox Cheikh Ibra ginnaaw bi nag bi sëñ bi dellusee ci la ko jox euh, sëriñ bu tedd boobu ñu koy tudd ñu koy wax suñ ma suñ ma yaasin ummi jeng suñ ma yaasin ummi jeng di boroom xam-xam di ko ragaloon yàlla kon ginnaaw bi nga xamee ni sëñ bi jóge na ci géej gi euh, boo fekkoon bi ñu ko joxee Cheikh Ibra mi ngi ko yóbboon sax ci dëkkam boo tuddoon jaara yoroon ko fa yor bu tedd yor yor bu bu bu rafet fonkoon ko lool ngir Cheikh Ibrahima ñu xam rek teele bi gaak yooyu waaye ginnaaw bi nag bi siñ bi dellusee ci géej gi nag ginnaaw ba ñu jox ko euh, simi yaasin ummi jeng moo yóbboon ko ci dëkkoon boobu tuddoon goyaar moom tamit yoroon ko fa yor bu rafet yoroon ko ci yor bu bu tedd bu boo xam ne daal euh, fépp foo xam ne euh, maanaam royukaay ci diggante nit ki naka la war a yore wala diggante tamit euh, euh, euh, jigéen naka la war a nekkee ci kër borom maanaam kër borom këram mu nekk loo xam ne royukaay ci jamono jii ndax loolu day mel ni siñ bi am na problème bu ñuy dund ci jamono jii te loolu siñ bi leeraloon na ko maanaam day mel ni teeloon na kaa lijjante laataa ñu cay àgg te loolu mooy jamono jii dangay gis koo xam ne day topp njàng mi ba li ko war ci liggéeyub jigéen du ko man ni mu waree dëgg-dëgg. kon loolu sëñ bi teel na lijjanti ndax euh, bi soxna si jàngee ba géeju ci xam-xam ci la euh, sant waajuram mu jàngal ko liggéeyu jigéen ñaare bi tamit euh, fii day mel ni ni ko sëñ bi waxee ki ñëwoon ci moom ne ko ana sa doom ji mu ne ko bu doon góor la war a toll ci daal jàng mu ne ko bu dee jigéen nag. kon tamit loolu ñu jàng ci da ngay dégg fii ñu naan njàngum jigéen jërta sori baa jigéen am njàngam amul solo wala yu mel noonu. loolu tamit sëñ bi teel na kaa réglé boo xoolee mboolem njabootam gu jigéen gi yëpp te ñooñu bokk nañ soxna Penda mi ñoom ñëpp dañoo géeju géeju ci xam lépp loo xam ne ulumul diine la lépp loo xam daa aju ci mbirum diine ñu xam ko kon ngir tënk rek day mel soxna si euh, loolu mooy euh, tarbiya bi nga xamee ne jaar na ci waaye tamit ci gàttal loolu mooy euh, fi nga xamee jaar na ko ci wàllu dem kër rek yu mel noonu. day mel na feeñ na ci wax ji kon mu mel ne sëriñ bi. Euh, jamono jii nga xam ne ci la nekk di defar ay euh, aw nitam ci la ko yàlla jox responsabilité jox ko soxna ummi mii kon day mel ne soxna si am na taw feexu sëriñ bi moom mës am jot waaye bi mu am dara cig féex ci la feeñ jamono sëriñ bi war ko tarbiya ni ni muy tarbiya te loolu day lu am solo ci dunduk soxna si ndax bi sëriñ bi jotee ndigalul sa borom jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yaral sa ñoñ ñi nga àndal yar leen ci yitte ju kawe am yitte ju kawe ji man maa ngi koy euh, firee pëseef wala rëy bët mooy foo gis lu baax jàpp ne jomb la nu waay man di mel ci lu baax nga xam ne yàllaa koy maye te foo boo jaaree fam jaar yàllaa ngi fi jugu fi dara jomb dara lu baax jombut kenn euh, diggante bi mu ci yar nit ñi ci la ci la soxna mi gën a jamono mu sëriñ bi mën a def ci moom loolu yi waaye ba mu ci noppee Euh, message bi nga jàllale muy bi bi li sëriñ bi jotoon a wax waaye juram mu jàngal ko liggéeyu jigéen maanaam formé ko ba fu mu dem man faa nekk mën a jaxasoo ñëpp euh, mën a a jaamu yàlla mën a xam ne sëy maanaam ni euh, ci jégalu ci kàddu gi jamono jii buñ doon joxe message ci gone yi dañ leen di wax ne kon sëriñ bi jàngal na leen ne sëy ak jaamu yàlla la jaamu yàlla la goo xam ne lii ci wolof yi di laxas nekku ci muy njariñ loo fekkeek euh, liggéeyu nday añub doom yooyu nekku ci maanaam ak jaamu yàlla goo xam ne boo ci jëliwutoo njariñ loo fekkee danga koy def boo ci ëmut boo amut doom sax da nga koy def maanaam ak jaamu yàlla la maanaam kon bu fekkee dañ ne liggéey ndooy añub doom day mel ne kon boo bu la leeree ne doo am doom jërut ngay sonn ci sëy ba waaye kon loolu nekkete lu woyof la loo xam ne sëriñ bi jëlee na ko fi euh, tam feeñ bu baax ci ni ni nga ko waxee nim nim ni mu jaaree ci digganteem ak euh, so soxna Oumy Kalsoum nga leeral ko ba ni sëriñ bi demee ci géej gi ba niñ koy joxee see Seex Ibra mu yóbbu ko ci dëkkam boobu nekk jaara euh, sama maam nee na ma maanaam yaayu soxna Oumy ah booy wax ma maam nee na nangam yaay soxna mi moo jur yaay moo tax mu naan maam neena na nangam nee na ajjuma gu jot Cheikh Ibra da daan yebal gileem sëf ci ay teraanga euh, yoo xam ne da koy yëti soxna Penda Touré booba ma nga colam euh, ba soxna Penda daan wax na xaw ma fan de waaye Cheikh Ibra sa jaar a neex na euh, nee na it da daan def bu soxna mi daan togg Cheikh Ibra day ñëw daan ne doomi Sëñ Tuubaa de fu muy toggee Ibrahima Fall war a mën a xam. Euh, noonu noonu noonu la nekkee nag mu beral ko ak keesu boppam ba gis nañ ginnaaw bi sax euh, ki mu ko tuddee bu yàggul la fi jóge soxna Oumy Fall muy nekk bu rafet sëriñ bi it ni nga ko waxee euh, wax ne boromam digal na ko mu jox ko sëñ Mayacine Oumy Dieng am na kàddu yum ko yum ko dénk ba mu ba mu koy jox sëñ Mayacine Oumy Dieng waaw ah, won ko ne ko yow soxna Oumy fa nga jëm xamal ne da fay jaamu yàlla ngir wuti àjjana. kon dénk na doomam xamal ko ne ko day liggéeyi maanaam euh, sëñ Moussa Ka sax bi mu koy da dafa wax ne euh, euh, sëriñ bi xamal ko ne ko sëñ ma yaasin ummi moo lay ram noonu noonu noonu noonu la ko waxee. xëy na loolu da da da ci da ci ñëw boo boo ñëwaatee buñ ñëw ci woy yi ak ak yu ak yu mel noonu waaye message bi dafa leer te am njariñ lool. kon bu ñu lay joxaat laaj ngir tënk ko ngir njëkkanteeg waxtu wi ndax war nañoo ñëw ci soxna si ñim bokkal ak ak ñi koy taxawu ginnaawam waaye bala ñu cee ñëw dañoo bëgg li li li lu am solo li nga xam ne mi ngi ci dund soxna si te ñu mën koo jàngat lu ci bari jàll. kon dañ lay delloo ab laaj muy loo ñu mën a tënkal foofu ci doxaloon bu rafet boobu ba ni soxna si di demee Mauritanie. Euh, diggante diggante boobu looñ looñ ci mën a indil incha allah. loolu bokk na cere rek yitte ju kaw gi nga xamee ne soxna si am na ko tax nga waxoon ko léegi ndax yonent bi alayhi salaam yi wax suñu dañ ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar si faqat himma ni nga ko leerale manees na kaa dégg noonu ndax rek mooy euh, lépp loo xam ne cirub yàlla la lépp loo xam ne nitu yàlla am na ko nga xam ne lii jomb la boo góorgóorloo rek mën nga ko am. kon loolu mooy himma ndax bu njëkk liñ liñ xamoon rek mooy jàng yam ci araf yi nii rek eh, loolu nag dëgg la baax na waaye ne laa am lu ko ëpp solo te mooy am himma xool gaa yu baax yi fa nga xamee ne fa lan àggoon nga xam mën nga fa àgg moo tax bi daraa wax ñim ànd naa leen saxaaba yi ñooy seeni baay ci diine kon loolu ngir kaweel seen yitte la kon soxna Oumy bokkoon na ci ñi nga xam ne yàlla xéewalal leen loolu mooy yitte ju koy te yitte jooju li koy firndeel mooy dem gi nga xam ne demoon na ko Euh, gànnaar ndax sëñ bi ni nga ko xamee ginnaaw bi mu jugee ci géej gi euh, tubaab bi dañ kaa yóbboon gànnaar ci 1902 lay war a tollool. kon bokkoon na ci li yàlla tawféexale euh, soxna si yi ñuy waxtaane mooy mu bokk ci ña nga xamee ni fekkoon nañ siñ bi ci Mauritanie. kon loolu day wane mboolem sart yi ñu daan sart mooy am jikko yu baax mokkal alxuraan nangam naa yooyu yëpp daj am nekk boroom xam-xam yooyu yëpp daj woon na ci soxna si ngir mu mën a dem fekk ji euh, sëñ bi waajuram foofu mu nekkoon ci Mauritanie loolu tamit nekk beneen tawféex ndax day mel ni bu nuy nettali euh, ña dem Mauritanie ñu ci bari ay góor rek lañuy tudd waaye dégg jigéen gunne euh, dem na Mauritanie loolu yombut kon day mel loolu tawféex la joo xam ne euh, yàlla defaloon na ko soxna si yi ñuy waxtaanee. ba mu demee Mauritanie tamit ma nga fekkoon siñ bi ci dëkk bi tudd xumaag mu ngi ci demoon ci weer wii ñu toll mooy rakki gàmmu ci fukki fan ak ñaar. mooy ci weer yu ñu toll ci la demoon euh, Mauritanie ci cent 1905 euh, fekkoon boobu sëñ bi mi ngi nekk ci barab boobu tudd xumaak fa la nekk ak moom diir ba nga xamee ne euh, moom la fa nekk ak siñ bi bi nga xamee ne dem na bay tàggoo tamit sëñ bi am na lum ko dénk am na ay wax ay ay ay ay ay ay ay ay mbóot yum ko dénk waaye am na yóbbal bu mu ko jox xëy na loolu sëñ sëñ bi dañ fi ñëw wala boog buy bu dee beneen laaj la ñu dugg ci insha allah. mel na ne. liñ laajoon leer na lool muy lu jëm ci demu gànnaar gi ni nga ko yaatale ak jàngat yu am solo yi nga ci def muy wane ne du caagi ne booba ku am paas rek dem dafa amoon lu tax a jug tubaab bi bëgg nit ku ñuul am complexe nit ku weex kon sëriñ bi buñ ko fa yóbboo ngir tas mbooloom sëriñ bi tamit yàlla defal ko taw feexu lu nit di xam ci saayir moo la gën a xam damaa jëlale baatin ba mu wax ak ñi nga xam ne ñooy saytu murid ya fay ñëw koomul xam-xam bu mu fa ñëw ku doonut ab jaamukatu yàlla bu bu bu ñëpp xam bu mu fa ñëw waaye ku dee li ñuy wax décomplexe ku nekkut ci yow nga xam ne amoo complexe naar du tubaab ku nekkut ci bu mu fa ñëw. Euh, sëriñ bi loolu la njëkk a réussir maanaam ay taalibeem ak ay njabootam ñim yar duñ am complexe naar duñ am complex tubaab diine nekkut ci. naar bi civilisation nekkul ci tubaab bi euh, ci xel la nekk te yàlla jox nañu ko ba mu doy kon mu tombeek fukki fan ak ñaar yi euh, ñuy fàttaliku euh, bisu màggal gi ñu koy defee Touba 28 incha allah dafa am lu am solo loo xam ne mat naa jàngat foofu muy li sëriñ bi wax doomam bi mu koy jox li mu ko yabe ak li mu dénk ki mu koy jox loolu daa doon loo xam ne ba jamono jii ñuy waxe war nañ koo mën a jàngat muy nga doon doomi kilifa ñëpp yaakaar sa waajur sa waajur xamal na ne fa nga jëm nanga jàpp ne da fay wuti àjjana kon kooku dala ko koo tërbiyeeloo dalaa toog toogloowu la dalaa man loo mbooleem luy roolub jigéen ci kaw suuf mbooleem luy roolub jigéen nag buñ ko waxee euh, ñu bari mën nañoo yàpp ne togg ak yàq ak yu mel no fóot ak yu mel noonu ci la yooyu ci la lu ci am solo la li ëpp solo mooy nga dimbali sa borom kër ci muy jaamu yàlla dimbali ko ci yar sang njaboot dimbali ko ci téye aw nitam di defar diggante yi doo seetaan dara lu yàqu doo seetaan lu ñaaw doonu puso di ñaw loolu kon euh, lu am solo loo xam ne jamono jii war nañ ko mën a jàngat bu ñu demee ci woy yi sëñ Musaa Ka doon doon woy ci diggante boobu bi muy woy sëñ Mayacine Oumy Dieng mu ngi ciy wax ne Seex Bàmba fab doomam ja ummi Mbàkke daal di ko koy jébbal tofal ca barke Cheikh Bamba naa doomam ja yow kat ummu sëriñ ma yaasin ummi moo lay ramm billaahi wallaahi tegal tallaahi Cheikh Bamba moo ko wax keroog lillaahi door a leeral na maam soxna Penda Touré moo doon yaayam keroog la sant yàlla santaat baayam alhamdulillahi ma sant yàlla ku dib jullit na sant am na yilla keroog la Cheikh Bamba ne Cheikh ma yaasin saa doom ji bul ko yemaleeg ñey baasin jàng na jàngal naa ko dootul jeng taset na sang naa ko mat nab sang te kat wu jëm yi duma maasum seeni baay kon nag bu leen yemale baa mat waay loolu lu am solo ngi ci luñ luñ lu luñ war a jàngat mooy ginnaaw ba mu waxee kii dénk na dénk na kim jëm ngir mu xam bët bi mu koy xool ba tax ànd ba gën a mën a rafet mooy lu mën di xew doomi Sëñ Tuubaa la la ko la koy jox fàttali ko fi fi bët bi mu ko war a xool muy ab gag-gag boo xam ne yenn ci borom xam-xam yi sax dañ koy jaawale maanaam diggante yamale ak maandu li ñuy wax li tubaab di wax équité ak égalité yamale ak maandu ñu bari dañuy wax ne boo yoree say soxna da nga leen a war a yamale waaye ku yamale ñu yemut boobu maandu maandu la suñ borom digle maandu ci say soxna mooy kii am ay kee am ay boo xottilee kii xottil kii dëkkal kii dëkkal kee. waaye boo fekkee da leen a bëgg a yamale nag jafe-jafe day am mooy yàlla da lay jox sax ci ci natt nii rek koo xam ne mi ngi toll ci un mètre quatre-vingt jox la koo xam ne un mètre soixante rek la bu fekkee da ngaa bëgg a yamale nag ni ma li nga leen di jëndal mooy tolloo te boobaa woo ndax kee li nga koy jëndal du ko amal njariñ waaye li am solo mooy boo xottilee kii xottilal kee loolu loolu mooy ak maandu loolu la suñu borom digle kon gàggante na ñu bari ci ci ci ci message boobu. feeñal tamit taalibi gi nga xam ne sëñ Yacine Oumy Dieng am na ko ak pësteef bi mu am ci ci ci sëriñ bi bi ko sëriñ bi waxee loolu moom it da ko daal di wutal keesug boppam euh, ku ne xam ne ne soxna si am na fa ak njaboot am na fa ñeenti doom waaye ñëpp dañoo wuyu seen borom ka ca magoon rek euh, soxna Mariama Dieng bi mu tolloo ci dem kër la wàccib liggéey muy lu metti sëñ Yacine Oumy Dieng it daa daal di yëkkati dara ci njabootam jébbal ko. ngir ñu wuutu ay doomam doon ay doomam kenn kooku soxna bu sa jëng ci la bokk mii waajur sëñ bu Boussa Dieng mii kooku soxna xadi Diop sunu yaay sunu yaay Khady Diop mi ngi nettali barki dem bi ñuy waxtaan ci rajo bi mu woote ci nee na sëñ Modou Boussa Dieng moo ma nettali ne man de soxna ummi ëw mag fayam ndax bu ma amee yàlla ak mooma ndax waajuram waajuru soxna bu Boussa jëng ci boppam bi mu nekk nag soxna ummi ci kër gi. nee na bi soxna mi di dem gànnaar da koo yóbbaale nee na bi mu àggee da koo nuyooleeg sëriñ bi dal ne ko maa ngi moom bokk nekk ci kër ga de waaye lu ma soxla dama koy defal lu may liggéey dama koy liggéeyal ku ma jàppale la damaa bëgg nga ñaanal ko mu am lu baax sëriñ bi ñaanal ko mu am fa soxna bu sa jëng sëñ ma yaasin ummi jëng wëlbati jël soxna bu sa féetale ko soxna ummi ngir mu doon yaayam soxna ummi moomu moo jël soxna bu sa jëng moomu Euh, booba ñi ngi jóge njaareem euh, sëñ mën njaay binta moo yanu gaal gi mu ñëw indil ko so sëñ lu fekk leen dindi mu am ci sëñ mut ba si mu baax mii kon defe naa ne ñaan nga nangu na barkeel na euh, loolu soxna Penn nee na ma sëñ mën njaay binta moo ko nettali ne booba moo yanu gaal gi bi mu ko yenni ko rek dafa am dara ci deru bopp bi loo xam ne da caa topp ngir ngir diggante bu sori bi kon nekkin woowa rafet na pëste feeñ na fa waaye kii ñuy woon Pastef it woon na ne moom day jaamu si yàlla mi mi ngi liggéey bàyyi bàyyi bàyyiwu dara kon loolu feeñ na ci bu baax boo àggalee wooy sax sëñ Musaa Ka day wax ne sëñ mu seen ummi jang taaxal ko yor ko fa Jurbel ati at sagal ko euh, loolu feeñ na ci bu baax a baax euh, ngir ba bala ñoo dugg ci tomb bu mujj bi dañ lay jox nga ñëwal ñu ci soxna mi ci boppam Euh, ni ba ak wàccug liggéeyam waaw xëy na waxtaan wi ni ni niñ ko bëggee sax euh, yaatu gi mën naa bañ a kii waaye ku doon topp waxtaan yi jàll yaataloon nañ lu baree bari kon tey dañuy tënk rek kon nag ñu dikkal ci euh, wàccug liggéey soxna si bu ko defee bu kàddu gi dellusee ñu leeral mbokk gi ak ñiy taxawal màggal gi ak yu mel noonu. waaye ginnaaw bi nga xamee ni dund na dund gu mel noonu ba pa ba yàlla dogal mu toll ci wàccu liggéey ndax bi ñu ko joxee si Yaasin Oumy Dieng ginnaaw bi da kaa indi njaareem ñu nekkoon fa. ba mu fa nekk ab diir nag ci la suñu boroom euh, dogale mu euh, wàccu liggéey ci ñett fan ñetteelu fanu tam xarit ci 1924. kon day mel boobu bu siñ bi mi ngi njaareem moo fi njëkk a jóge siñ bi moo fi njëkk a jóge tamit waajuram wu jigéen. mi ngi ndax mi ngi gene mi ngi mi ngi génn àdduna ci euh, mi ngi làqu mi ngi làqu ci 1924 euh, ci Jurbel ci ñetteelu fanu tamxarit ci la làqu bi mu làqoo nag taxawaay bi nga xam ne am woon na ko ci njaboot gi ci mbokk yi loolu taxoon na mu def njàqare lu rëy rëy ci njaboot gi ci mbokk yi euh, ginnaaw bi nag ci leen siñ bi woo ngir dalal leen dalal seen xel wax ba indi ci wax ju yéeme yéem wala ne soxna ummi kat bii mooy ñetteelu yoon euh, yàlla di yónnee ñaari yoon yu njëkkee bi mu yónnee euh, ñeewante gu ma leen ñeewante ak yërmande moo tax ma dox ci diggante bi ba loolu umut waaye ñetteelu yoon bii nag yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo ñëwal boppam wane ne umut euh, benn berndeel benn teraanga bu ñu ko mën defal lu ma yóbbaale ruuxu soxna su tedd si muy soxna ummi tegal ci nag xam ndax ni ñu xamee sëñ bi diggante ma yonte alayhi salaam xam yonte bi mooy léppam daa jeex ci moom tàkk teggalañ ci ne yonte boo ko alayhi bu soxloon sama ruux gi euh, du ko fi bàyyi loolu rek moo tax soxna si dem waaye nag na ngeen dalal seen xel ndax bu ëllëgee yéen ay yéen ak moom yéen ay bokk foo leen nekk ci àjjana kon loolu rek daa doy sëkk ci euh, seere daa doy sëkk ci taxawaayu soxna si waaye daa doy sëkk timit ci Euh, mbokk ak soxna si euh, jëmmi yi maanaam yi ñu ci mën a jàng ci ak dundam mag euh, yi ñu ci mën a jàng ci ay jaar jaama yu mel noonu ginnaaw waxtu daa xat ginnaaw bi mu fi jógee tamit mm, ñu bokkoon na ci ñi nga xam def nañ ci ay marché mooy sëñ Mahamadou Mbaye sax sëñ Mahamadou Saxir Mbaye Louga defoon ci xasida gu am solo xasida gu yéem goo xam boo delloo ci diiwaan bi nga xamee dajale naan ci waaye waa Sénégal mooy sëñ Mouhamadou Lamine Fa sëñ Mouhamadou Fadal ak euh, suñ Mbacke Bousso ak ñaari doom yi suñu Assane Bousso suñu Malaay Bousso ak yeneen yi nga xam ne ay son raaw sénaxaar yi ne loolu ñëpp dajale nañ seen waay mu tàmbaloon ci alaa noox yet lanaa bintul hamaami saxaa jadasan laha sawbal amaami taw xasati diyaaru li faqdi bintin la xayr naa si rotubil jisaami ayaa way xal manaaya lam tubaqi xalal xabara ay sayidatal anaami wayaa say xal masaayiqi kunta mar an moo xat dalil mulimaati xisaami ba xësidig àgg ginnaaw waxtu daa xat loolu waaye li ci ëpp solo rek mooy seere bi mu def ci moom ne ko taw waxa siti diyaar wan ni kër yi danoo wéet ndax man jam gim jam xu diyaar la wan ne kon soxna si njariñam yaatu gim yaatu kër yi la ko wax wut kër waaye dañ kër yi danoo wéet li tax nag mooy li faqri bintin li xayri naasi maanaam ñàkk gi ñàkk soxna si leet fii nga xamee ni moo ci jóge nekkoon sangum mbindeef yëpp wax indi ko maanaam wax ko ay ay qualité yu boo xam ne soxna si melo woon na ko njariñ jeeg taali beeg nangam ak nangam waaye itam ñëw ci defal siñ bi ci mooy sa sayxal ma saaxi kon mar a nangam fa sabro ko faaxa sabro naas xataa samot bi ila ahlal maqaami ak yu bëree bëri kon ngir tënk rek mën nañoo yemal foofu waxtaani xanaa joxaat siñ fallu mu doole ci lim ciy dolli incha allah ni mu rafete woon ci bind ba sëñ Moussa Ka buy wax sax ci wàllum taar moom lay jël misaal naan ummi Mbàkke taar ba kaar kenn du ko jox sëriñ Guyaar Euh, nam rafete woon ci waaru wàllu bind noonu la rafete woon jikko te loolu da daa doon lu am solo mooy nu la yàlla mën a bindee sa jikko ngay sange nit ñi jikko ngay doon ab sang euh, sëriñ bi sax buy wax buy woy yonent bi euh, waxu ak ma loolu war a xal-xan waaye waxul xan ni mu leen dàqe noonu la leen gën a baaxe jikko kon jikkoom ji nga xam ne mi ngi woon ci moom ni euh, moo taxoon mu mën a jëflante ak ñëpp waaye tabe gi nga xam ne moo ne ci woon moo tax ba ku ko wàcc loo it la war a dem ca yëfe moom moo koy def ngir ngir ngir tabe gum tabe woon ci àllalam looloo tax mu bari ay turandoo ci ci ci dëkk bi doyoon na sëkk nga ne euh, li ko tàmbalee Sëñ Mudu Mustafaa ba ci Sëñ Murtala ñiñ ca xam ñu daanaka ñëpp ko tuddee ma euh, Sëñ Mudu Mustafaa ki mu ko tuddee xam nañ ko soxna Umi Xari Lo Sëñ Fallu moom Euh, ginnaaw li li liñ liñ euh, séqoon ginnaaw doom bokku baay gi dafa bari woon ba moom ñetti doom la ko tudde euh, kenn ko dundul waaye ñaar ñi yàlla nañ fi yàgg loolu te wér soxna ummi Touba soxna ummi Madina yëpp moom lañ ko tuddee nee bi bi mu ko tuddee kenn ki sax am na mag mu ne ko da ngaa fàtte ne tudde woon nga ko mu ne ko kenn du jur doom di ko fàtte kenn du jur doom di ko fàtte noonu it Sëñ Basiiru tudde na ko. sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mourtala tudde na ko sëñ Baara tudde na ko boo jugee ci doomi sëñ Tuubaa it Seex Seex Ibrahima Fall tudde na ko euh, sëñ Mor Doj tudde na ko mën ngaa ñëw ci sëti sëñ Tuubaa it sëñ sëñ sëñ Muudu Busa Jang sëñ Alaaj Baara sëñ Ndambatta sëñ ma Massamba ñëpp mbooleem kuñ xam ci yoon wi daal maanaam da nga fa gis euh, kum ko tuddee wala ñu tuddee kuñ ko tudde maanaam am ummi moo xam ne moom lañ ko tuddee wala ñu tuddee ko aw turandoom kon loolu day wane ab jëflanteem bu rafet waaye euh, yaa ngi daanee la ci bi mu wàccee liggéey euh, ba sëriñ bi wax ne nañ ko denc ci xabru mbéy mbay ak seere yooyu mu ci seere noonu mu meloon tax bi mu fi jógee mu metti ci xolu murid yëpp waaye mu metti ci xolu ay mbokkam ñi nga xam ne moom lañ amoon ci sëriñ bi sëriñ bi ci la leen woo defal leen wan leen ne euh, maanaam ñemente ci yéen moo taxoon muy def intervention ñaari yoon waaye nag kii ko jël si tey bu soxla woon sama groupe du ma fi bàyyi muy sangu mbindee fi alayhi salaatu wasalaam waaye bu ëllëgee fa bëggee sa ku ñëw fekk leen faang moom mooy fa ñëpp bëgg ne daal ku ñëw fekk leen faang moom loolu doy na loolu euh, soxna si fàggul ko ay mbokkam loolu rek jar na jar na jar na sant te bari na yu ko yu ko daan fàggul yu sëriñ bi daan wax ci. askan wi yoo xam ne euh, soxna si wala waay juram moo taxoon mu mu mu ñu laafaale ñu ci ñun ñu bokk moom ñëpp. mën nañ cee jël misaal rek sëriñ bi mas naa wax soxna penn ture muy waay juru soxna moom mi booba da koo da koo fóotaloon ay yére bi mu ci noppee bi ko sëriñ bi sant dane ko day yéen askanu euh, kura yéen askanu kura ndima ku soxlaa set nu muy def mu ne ko xanaa wutub saabu mu ne ko maay seenub saabu. ne ko di seen mbalaanum sutura ne ku ko soxla gis boppam nu muy def mu ne ko wutib seetu mu ne ko man man man maay seenub seetu ku soxla saafara nu muy def mu ne ko xanaa ku soxlaa wér nu muy def mu ne ko wut saafara mu ne ko maay seenub reen ñeent yooyu mu doon ci ñun yëpp te soxna si fàggul ñu ko loolu donc jaroon na ñun ñëpp ñu maase nag di di sant sëñ bi sant cant goo xam ne amut fu mu yem waaye bi muy li gën a yéem li gën a yéeme ci fi nga daaneele bi mu ko yóbbu ca xabru mbéy mbay Euh, li mu wax ne soxna Anta Sali Kane da koo laaj wéetal waaye laaj ko ram mu jigéen ñu daa mooy loolu euh, moom la sëñ Moussa Ka daanee la ca bi muy wax ci soxna ummi day wax ne ñu teg ci ay at ummi Mbàkke faatu rahimahallahu këram gaa yaatu moo njëkk dem baayam ñu rob ko mbàmpana ci ndigalal baayam mu tàbbi aljana bisub keroog la Bàmba wax ay xar baax nga xam ne soxna ummi Mbàkke moo baax ne sama maam dañu rob ca xabruy mbéy mbay moom ma ko laaj ràmmu jigéen ñu daa mooy kon day mel ni moom wàcc gi wàcc ci xabru mbéy mbay rek ca la ràmme ña fa nekk ñépp loolu day wane martabaam ak darajaam kon li ñu tëjee waxtaan wi rek day doon ak leeral goo xam ne moom mooy li li li li li tax a jóg màggal gii nga xam ne moom moom lañ koy wooteel euh, ñen ñoo koy taxaw euh, di ci jiital soxna maam Penda mi nga xam ne moom ak ci njaboot gi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te Euh, li nga xam ne xëy na ma mënees noonu na koo leeral sax ci njëlbeen muy soxna Penda ture bi ñu ko joxee sëriñ euh, sëriñ bi mu am fa taawub sëriñ bi muy Mouhamadul Kabir teg ca Umu Kalsum mii ñuy waxtaane tey ginnaaw bi sëriñ bi da koo delloo ci am mbokkam nag jox ko ko euh, sëriñ màkk sëriñ màkk Gumba ture kooku ba mu demee dafa am ak njaboot ñeenti doom yoo xam ne moo soxna mi ñoo ñoo bokk benn ndey ñoo ñii nag ñooy ñooy ñooy mbokki soxna si di ay doomam yi nga xam ne ñoo ko taxaw ginnaawam ba yëgut ne eh, bàyyiwu fi doom ba ba mu yegg si fii euh, ba mu demee ci siñ màkk gumba Touré moom mi benn góor la fa am ak ak ñeenti jigéen euh, góor gam fa am mooy siñ mu ture gumba kooku moo am soxna Penda Touré ak soxna Ummi Touré ak soxna Maymuna Touré soxna Penda Touré moomu mooy waajuru euh, siñ Abdou Kanji ak ak ñoom soxna maam Faati Kanji soxna Ummi Touré di waajuru soxna Waalo bu soog alaaj Ndiaye seex ne ni mi ñu àndaloon euh, ci waxtaan wi barki dem soxna may Maymuna di waajuru soxna mi sàmm ñoom kon suñ mu turé gumba euh, ñooñu ñooñu ñooñu la am mu des nag ñett ñi mbokkal ñi soxna si bokkaatal nday ci jigéen muy soxna Aminta Touré ak soxna Astou ak soxna Xari Touré soxna Aminta Touré moom mooy waajuru sëñ ba sëñ Basiru Saam mi mi waajuru sëñ Mosoobe ah, soxna Faati Mbàkke mooy waajuru Euh, sëñ Baara bi toog ñoom soxna soxna Faati Mbàkke moomu sax moo tàmbali woon màggal gi euh, ca Mbàkke Bawal euh, li wér te mooy atum 1988 moom màggal nañ ko ci waaw li ko jiitu nag comme mag ñi daawuñ bind date bu exacte waaye nat atum 1988 moom soxna Faati màggal na ko ca Mbàkke Bawal kon mën nga ne gën gaa tuuti ñu ngi ci fanweereelu édition ak benn gën gaa tuuti soxna Faati Mbàkke moomu moo ko moo ko tàmbali woon ca Mbàkke Bawal mooy waajur tamit soxna Oumy Kala euh, mi mi jur euh, euh, so soxna Moussa Ndiaye ak sëñ Abdou Mbarak soxna yem mi sa waajur mi ba tax nga toog fi sëñ baaraak ñi ñi ñi mbokkal ñëpp ñooñu la soxna Aminta am mu des soxna Suture soxna Suture mooy waajuru sëñ Basiiru Mbàkke Gelongal mii waajuru sëñ Mbàkke ak soxna Bintoog ñi ñu bokkal waaye soxna Astou ture moom it moo jur soxna Penda mii di màggal tey mii waajuru soxna Astou sama waajur ba tax ma toog toog fii tey ka desoon ci ñi bokk soxna mi nay nag mooy soxna Xari Touré moom lañ joxoon ma Masamba euh, am na fa njaboot waaye dunduñ kon ñee ñii la ñii ñooy euh, ñii la soxna si bokkal waaye soxna Penda ture mi jur soxna soxna wu mi nag dafa am koo xam ne moom la bokkal ndey ak baay am na ñoo xam ne sax ñoom la bokkal nday ak baay waaye buñ ci tuddee kenn mu doy. Euh, euh, muy soxna Faati Koura Touré li tax ñu koy ñu ñu ñu ñu buñ ko tuddee mu yóbbaale ñi ci des ñëpp mooy day firndeel soxna Faati Koura ci boppam day firndeel liñ doon wax ci askanu wi soxna mi bokk. niñ niñ mel ci ak jaamu yàlla niñ mel ci wilaaya waaye niñ mel ci pësseef ak taalibe moom misaal la ci exemple la ci ndax moom bi mu njëkk a ñëw di jaayante ci ak sëriñ bi booba sax dafa sëriñ bi da ko waxoon ni ñoragut des am na lu des waaye bi mu ñëwaatee indaal ne melokaanu daanukat woo xam ne daal euh, nit ñi dañoo yaakaaroon ne sax dafa dafa tàggale koo sagom bi ñu ko waxee sëriñ bi la ne déedéet dafa jublu dafa jublu yàlla rek dafa jublu yàlla melokaan wu yéeme boobu mu fi andi woon tax na euh, nee nañ bu masaan a xiin sax day day taxaw ci peri di dox ci peri sàkket yi naan xaaral ma xool ni Mikaayil di séddalee ndox mi euh, bi sëriñ bi nekkee Ceyeen Jolof mas naa yónnee di wutlu am ndox Euh, ñooñu dem boobu ak sayaan ga rek lañ mën a ame ndox far fekk fa njaay àll euh, maanaam gaynde mu nekk ci sayaan ga ñu taxaw euh, daal ne boroom boroom boroom borom kat daf borom sayaan kat dafee nekk waaye soxna si moom soxna Fatou Kouré dafa daal di xuus da dafa daal di xuus ñëw dugg ci sayaan ga daal di tànk ñëpp di ko yëm bi mu ñëwee sëriñ bi da koo laaj la nga def loo ci jublu mu ne ko damaa xam ne kafa nekk maa ngi moom a bokk borom mu ne ko waaw waaye loolu bu ko faral di bari looy def ndax pësteef bi nga amee pas-pas yi bokkut nit mën na la caarooy ba ba ba gaañoo ca soxna Faati Koura moomu nag mooy waajuru euh, soxna Wëlimate Kaba soxna Wëlimate sekk ak soxna Marème Dame Seck soxna Wëlimate Seck di waajuru sëñ Ilimaan euh, miñ koy màggale këram incha allah màggal gi doon soxna Marème Dame Seck di waajuru euh, sëñ daan Marème Dame ak ak mbokkal ñëpp. kon euh, bis bi ñooñu ñoo koy taxawee maanaam euh, mbokkam yooyu nga xam ne ñooy ay doom doomi boppam di ay mbokkam euh, soxna si fàggul leen lim leen fàggul ci sëriñ bi te mënuluñ ko woon seen bopp fàggul leen ci ay tawfeex yu njëgut ñu wëlbatiku ñoomit it mànkoo ne soxna si daal ay doomam jiitu nañ waaye ñi ñi ñim ñim jural boppam jiitu nañ waaye ñun ñii mu bokkal ndey nag suñu ay doomam ak ay sëtam ak muy ñun ñii danañ ko taxawu. ba ba doon ay ba wuutu ay doomam yooyu eh, màggal gi doon altine bii ñu jëm koon incha allah eh, ci kër Sëriñ Ilimaan moomu ñu tudd léegi ci Touba 28 eh, màggalug bëccëg lay doon. cérémonie bi ñu ngi koy def 17 heures incha allah bu cérémonie bi jeexee ñu yeewee ñu ngi ñi ngi ci woo ñëpp cérémonie bi it am na conférence buñ cee def boo xam ne thème bi mooy taxawaayu jigéen ci yoonu murit Euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane moo koy taxawee kon di h lay doon ñu ngi ciy woo ñëpp di ñaan lii ñu fi waxtaanee yëpp euh, te doon loo xam ne dafa bëgg mu doon njariñ ngir ñëpp jariñoo ko suñ borom defal ñu tawféex ba mu leere noonu ci xelu nit ñi lu ci dëng yi ñu xam ne sunu làmmiñ moo leerut sunum xel xaw a lëndëm sunum xam-xam gàtt ñu ngi dogal ngànd ñëpp euh, di jégalu ci kàddu yi di sant. Euh, sëñ Mbacke mi ñu ñu ñu àndaloon ci jotaay bi di di la santaat bu baax yow it sëriñ sëriñ Saliou di ñaan euh, ñu am tawféex ci liñ jublu euh, sun borom jéggal ñu ci li weesu bi jaahi Cheikhul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.